trois pièces ndax da ngaa gañ. trois pièces waaye mu bàyyi ko yow. waaw waaye fi mu toll mën nga ko sol da nga gañ. waaw capital nga gañal ko. waaw gram bu yi waaw rek gram bu yi day ëpp ci man. waaw mooy ah. yokkal ñaari rek. non day baax. kum jël ma daam kum jël ma daam ku ñeme la jël naa la benn jarul. ñu ngi ngi lay bëggee. waaw waaw Touba yi nekk gor ki gëm tëxlu fàtt nopp yëpp ñu loo bëgg a dégg muy ndam rek borom kurus gi kii fanaan ci der bi ngir Moodu. kii xam ko yàlla. bu wéttali ko bu wéttali ko yàlla sëriñ Cissé mu sëriñ Baaba Kër Si bëkk rek dara maa loo kuma jàpp baj fenn ak bu kuma pend paati pend xaar yàlla bopp jot gëj na maa wax waaye ba ma fekkee fi ma wax lu baax ku la doon fay milliard ci weer yii di la seetloo wala muy dugg mu lay dugguloo xamatu sa trappel prioritaire nga boolam ci yaay appel bu jógee Amérique nga def ci Sénas appel bu jógee bu jógee bu jógee Paris

kira-kira gërëm nag ak ki nga ak lu yaay ci réew waxal ëmbam jëg di nga jël dama ni sëriñ sëpp nan dagg kurus yi nanu wàcc der yi te jëbbal la der yi topp ci sa ginnaaw nan la sëriñ bi yaay surub sëriñ yaay faj aajo jaam ci say ak ci batti ku nangoo ku bañ nangu nag jënd jërub bañ ku wérante jël ñu daan ci fëri sëriñ sa la dama bari na waaye sering Cissé lay diglu daa am lu mu waxal kau nañ ko waar aram aram aram Serigne Cissé sigil sigil sigil sigil Serigne Cissé sigil Serigne Cissé sering Serigne Babacar sigil jàkkaarloog réew mi marqué nga sa empreinte dama ni mbër yëpp ku sa yan nag Serigne Cissé di sa Serigne waaye yow menn mbër nga soxla yow kenn nga bëgg a nekk ci ginnaaw te koo àndal mu am victoire koo àndal mu am ndam doo ngemm kenn ay supporteram di jooy doo ànd kenn kooku di am gàcce ki nga àndal muy Serigne Babacar Sy moo la dëpp loo xam ne giñ naa ko ci yonent yàlla Muhammad ku róofoog yow nga woon ko biir yaa bëri jom liggéey may nañ bitim la ku rek la perte sa yaay lekk sa bénéfice danaa nga doo sàmba alaar wayu tuxlaaju koo bokkal dimbali ko moo tax bisub diine bu fi nekk ci réew yow dañ ko tudde Serigne si bari na de waaye ñu dul laa lay expo TFM publicité yi jàll ñu ne bisub diine bi Serigne si sa ko tudde bu Serigne Babacar danoo xam ne foo danoo xam ne naxaate woo danoo xam ne li nga nekk lu leer la ab sëriñ da ngay jàngi xam-xam am xam-xam bu wér am ijaaba boo waxee du naw la boo jëfee du naw la sëriñ boo xam ne bu guddi jotee ngay ci yeneen dem ci restaurant carte mariage bëloon kasuloo mun dem fekk dañ ko koo jiñ waaye du moom sëriñ si sa sigil sigil ba xam ak réew mi bëgg na temps yi yëpp nag damaa puus ba ma gisee addu waaye nag tubaarkalla macha allah tey ki nga ngeen mën ko takkusaan ak timis ku la ko téye julli boo ko jàppee woon ko mbir takkusaan ak timis ku tax ba nga faat waxtu yooyu boo ko jàppee pang pang ji tëddak li ko ne lan moo tax nga may faatloo waxtu yi moo du kenn lu ko faatloo takkusaan kenn lu ko faatloo timis ñaari waxtu yooyu boo ko faatloo ba julliwu ko bu la jàppee woon na mbir ku ko kukola la la ke kukola lala la la la lala lake le roi des parcelles le roi de tout le temps le roi de tout le monde point trois pages ndax da nga gañ waaw waaye fi mu toll mën nga ko sol da nga gañ ndax lamb ji da doon lamb capital nga gañ ko sa gram bu yi gram bu ne ëpp ci man waaw mooy door ñaari pièces comme ah yokkal ñaani rek non day baax

keesaanu tubarkàlla macha allah bu wéetee wéetlu ko yàlla bu wéetlu ko wéetlu ko yàlla Serigne mu Serigne Babacar Sy bëgg rek dara maa loo ku ma jàmm bañ fenn ak bu ku ma penn paati penn xaar yàlla bopp jot gëj na maa wax waaye ba mu fekkee fi ma wax lu baax ku la doon fay milliard ci weer yii dina seetloo wala muy dugg mu lay dugg loo xamatu sa trappe prioritaire nga mboolem client yi appel bu jógee Amérique nga def distance appel bu jugee bu jugee bu jugee Paris Serigne Cissé def ci silence appel bu mën a doon jël Serigne Serigne Cissé def ci silence waaye nag tubarkalla macha allah li tax nga def silence ñu lu tax nga def silence nga ni muuru muuru xarañ loo lu tax nga def silence nga ni muuru xarañ loo lu tax lan mooy tax ngay def silence ci muuru nga ni damaa bëgg muuru am ndam lu rëy sécurité parcelle waaye sécurité Sénégal. Sering Cissé la nga bëgg yàlla ànd na kira ki la gërëm nag ak ki nga lu jaay ci réew waxal jadi, njëg di jël dama ni nan nanu wàcc der yi te jëbbal la der yi bi yaay sunu sering, yaay faj aajo jam ci say ak ci batti ku nangu ku bañ nangu nag jël na cërub bañ ku wérantum jël ñu daal la ci saaku fëri Cissé kenn dama ne waar yi bari na de waaye Serigne Cissé laay déglu daa am lu mu waxal yóbbu nañu ko waar aram aram aram Serigne Cissé sigil sigil sigil sigil Serigne Cissé sigil Serigne Cissé Serigne Babacar sigil jàkkaarloo réew mi nga sa empreinte dama ne mbër yëpp ku sa yan nag Serigne Cissé di sa Serigne waaye yow menn mbër nga soxla yow kenn nga bëgg nekk ci ginnaaw te koo àndal mu am victoire koo àndal mu am ndam doo ngemm kenn ay supporteram di joy do and ak kenn koko di am gatcha ki nga andal muy serigne baba kersi mo la depp lo xamni giñ na ci yonent yalla muhammad ku roofuk yow nga won ko bir ya bari jom ligue mel ni bitim la ku rek la perte sa avec sa bénéfice dara nga jël serigne baba kersi jox do sama alarm wayu tuxla di ko bokul dimbali ko tax bisub diine bu fi nek ci rew yow lañ ko tuddé serigne si bari na dé waye ñu dul ñu la lay tfm publicité yi jall nga ne bésub diine bi sëriñ Cissé lañ ko tudde mu sëriñ Barro danoo xam ni foo danoo xam ni naxaate woo danoo xam ne li nga nekk lu leer la ab sëriñ da ngay jàngi xam-xam am xam-xam bu wér am ijaaba boo waxee du naw la boo jëfee du naw la sëriñ boo xam ne bu guddi jotee ngay fanaan ci yeneen dem ci restaurant carte mariage bëloon kasuloo mu dem fekk la ba kooku du sëriñ dañ ko koo jiiñ waaye du moom sëriñ si sa sigil sigil sigil waxal ak réew bëgg dara maa ko mën a jàpp bëgg naa ko marqué nga sa empreinte temps yii yëpp nag damaa pause ba ma léegi jëluma kaddu waaye bu ma la gisee àddu waaye nag tubaarkalla macha allah tey ki nga ngembal nee naa ko léegi takkusaan ak timis ku la ko téye julli boo ko jàppee woon ko mbir takkusaan ak timis ku tax ba nga faat waxtu yooyu boo ko jàppee pang pang gi sundat li mu ko ne lan moo tax nga may farloo waxtu yi moo du kenn lu ko farloo takkusaan kenn lu ko farloo timis